jungle. nit mel daal benn dana koo si fence bi bañ a wàcc. mais si soo dee vraiment sonn ji la. bi dañ fekk si président Barrow. mais nit ñi jaaree président Barrow loo war a jàpp. safara bu yàlla taal bi ah, mbaa mi nga ne yaa a si digg géej safara bu ko yàlla. baabaatee baale dimba maloo do. soo ko naree fee ndox. coono ñëwal na la. ñii teg yooyu demoo faana ci yoon la wala yéen a ko daal ci li bokk. war ngeen xam ne. aw daal ñett ñi na ko. président Barrow buur bu yàlla déglu réew mi la. président Barrow mu pantal te ala faa leen ñi mbango ye. yéen waa ko ñoo mi nag. a dola fi ne. nga ñu fa leen mu ko. ganaar buy topp kuy rooti ndox. a ah, kon ni yéen si sew je ji bi yaakaar naa ne. amin jigitale ko. ko ya ko njëriñ bi nekk. nafa ko be dane. ko yaakaar ne. jiko be dane. wallahi wa ko yow réew mi yëpp la jëm ñëpp ko fekk. wallahi pan ko be ba ngel no ba def président ba si yàlla. ka do ala ka ala di liggéey nii wóor na leen ne. ala xeetal ma ne ko. vraiment yi comme yi yàq na lu bëri ci école bi. lii ko réew saa bu jamono jàpp ni yaakaar. lu waral loolu mu mën ko. bu dee asaba yoroo. xam ni ñoo yoree nguur. man sax ndax mara ñaar lool. xam ni ñoo yoree année réew alal boo xam ne moomu la ko. waaw boo digoon la ndax loo mara ñaar te ko mbar bu ndax lu mel yaa koy tànte. bañ koy pàccal pàccalee. xam nga soo daaw loo la wul ndax lu nga pàccal. dana ko delloo ko seen i borom. ah te bu ñu war a gaaw mu ndax maa moo tax Adama Barrow man li man wala na Adama Barrow ɓe men kay mo ga ay ko mi kambiye yi ngeen xam ne wala kam ne ko ta non ko yàlla may nañu buntu boo xam ne ala yi ko ndara me ya lon ko yàlla may nañu xiwal boo xam ne ala yi ko ne mala me ya lon ko wallahi xam nañ fi jógee loolu pour kenn ñaar fukki at wallahi te bu da daane ama mbokku Panga ba tey. kon nag ñi nga xam ne ñii ñu ngi toog. o ɗo a siri. maa ngi leen di ñaan a ñëw dugg ko si balaa doo fee. maa korala laaja ni mboosoɓe faala. ban kon du fexe mbir mi dina defe de. a ni mbooso faala continua ko leyaade. gannaaw loolu maa ngi ñaan waa ñëw waa ñëw waa a mi. waaw koolambe ñoom ko daan la. Gambia bi boo ko seetloo. ako Gambia ñan yaakoro. Allah bi yëpp toog nañ ko. ye wuloo bee kuntu. yaqaɓe baɗimu e baɗimu tiña yaqaɓe salum e salum tiña yaqaɓe yu arar par ce que everywhere e wu arar ma ko yewɓe tiña elarar par ce que allah wiyen yaqaɓe elarar kono wulow ɓe tiña yaari gof mo fide so tawi a kon tum dakulala ɓe jam mbi foo ñi foo ñi ak ñooñu ani ñooñu seen àll bi nag boo leen fexee benn yàq alla ke wuloo men ɓe ɓen yàgg naa sun dafa yaa tiña tourisme bi nga xam ne bu ngeen jógee Banjul Serekunda bir kaama ba kaw di ñëw fii tourisme meelo nga me boo gan saala kilimo ɓe boo gan nan kongo tuma bango ga aba ñaatali kan jan ak yoon yu baax fi ne ani sila ke dool mel bi naa dara jan ak xam ngeen ne Kinta Kunte James Island bu pour kenn njëriñ ba fa ne yàlla ki bu mbaa ku ndax naatagol men ɗam mamɓe ɗiɗɗo kan jawar mene si tundu mi aga hikkirol men ɗam mamɓe ɗiɗɗo kan jaw solen jope sen allah mini ko kor naali allah wuuro abdulaɗe tera mulakoɗe kam allah mi dekk mi gina dekk gannal tekmi ñimi fini wat walla allah wuuro ɓe sika a tewa wula kama dege goɗaɗae sen allah mi alda allah wuurol mara ku kulen jaye sen suuf bakanal la kenul woosi. ay gars yi ngay jógee ci kaw ak seen xaalis. war na bokk ak sa sanwe di la ko doon. fekk amuloo dara. daa sa sante bulu. tool. yàlla ku ko waas. ëllëg sa doom barke. al sini ndigoy baraka. ko fu mu liggéey. affaire bi toogu laaj. na ngeen muñ ba leen di ay seen àll. si sabara kanaan la kon kenol waati. mooy njëriñu réew mi. wala banko la nafaati. bu leen bor àll bi. ak anam loolu tey. su nit ñëwee di bor dem leen di bor. ndax ñu naan les foyers même wala tey laa daa boole. moom àll taxul nga moom garab yi pour daaneel ko. waaw kooku ay daan daam kenn aadama tànn yi daal ngeen gën a yëgal koy la de. na ngeen fàkk seen àll bi ba dem dem jaay jaay seen àll.